sëriñ bi nee na mi ngi sant waa Touba TV Argentine nee na ba mu ñëwee ba léegi ànd ngeen moom liggéey bi ak donga yëpp ngir saytu ko ba lépp tegu ci yoon kon ku mu ci xam ak ku mu ci xamut na leen leer na da leen ñaanal ba tele bii mel ni tele yi ñuy dégg yëpp ci àdduna bi ci barkab sëriñ Touba ndax tele ab sëriñ Touba la télé ab jullit yëpp la jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah